nuy naa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de presse teel sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan mbay si mbuleex xew ci réew mas kono sunu gaal gi ñi fi doonoon ministre ci nguur ak président Macky Sall gi fi woon yëglekaay gi naan man fi toll nii tembe xam nga lan lañ leen wax lépp lu doon oto buñ leen joxoon mbaa kër goo xamante ni état bee leen ko joxoon liñ leen di sàkku ci ñoom mooy ñu delloo si ko nguur ak Ousmane Sonko goog Bassirou Diomaye Diakhar Faye naan man bëgg dara ñi nga xamante ni ñoo fi woon ca nguur ak président Macky Sall gi fi woon ma ni ña ngay leen joxoon naan ña ngay nangu caabi kër yéen li leen joxoon ubbil yéen kaay gi niki aljuma giinu génn lan jot notification mel xibaar ba niki aljuma giinu génn kay la daanu seen kaw ñu naan leen andi leen watay delloo leen caabi kër ya nga xamante ni état leen ko joxoon dëgg ñeneen ñi yéemu ca jaaxle ci réew mi askanu sunu gaal mooy ñi nga xamante ñoo nekk di njàng di njàng njàngum arab yëgle kaay gi naan man ñu bari ci ñoom de ñoo xamante ni waaw toll nañ ci 13492 di ay diplômé arab yëgle kaay gi naan man amuñu genn liggéey Sénégal moom kay jàng fi arab waa ba mokkal ko leen képp rek dong daanaka moom lañ nemmeeku ni lu ëpp ci ñoom moom la ñuy def muy jàngale ji waaye seeni diplôme liggéey ci ci réew askanu sunu gaal di leen di jafe lii nag dees na ci wax mi ngoog nan doxantu fa nga xamante ni moo di ca Linguère yëglekaay gi naan man benn waay kii aw sàmm la ci jëmi boppam da doon déglu musigam de di ko enjoy di ko koos comme ni mu ko neexee benn xaritam di ko soofantal ak naan qualité musique bi baaxut ak kirikiki karaka yëglekaay gi naan man sàmm ba xam nga nu mu def dañuy roseet jaaseem daal di dagg aw loxoom musique ah lii de jar naa waxtaan te jot gu bari mën na lu ne moo kay moom moom kay mi ngoog rek xalifa bi ci jëmi boppam nag wax naag ñi nga xamante ñoom ñoo di célibataire yi nga xamante ne dañuy wëndëng wëndëng yi taxawaalu gère général bi yëgle kaay gi naan man xalifa bi xam nga ñu ma waxal célibataire yi ak ñi nga xamante ne ñooy sëy di tas Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes ne ndaw yi nanu liggéey laa wax te bàyyi wër gi te naa ñi nga xamante ne amagunu soxna laa wax nañuy liggéey bu fekkente ni nag mënu ñuy liggéey nañu dëkke woor ngir mën a moytu yenn mooy yi enquête yëgle kaay naan man fa nga xamante ni moo di ca fan li ëpp ca ña nga xamante ne ñoo am AVC laa wax daanaka amuñu juróom fukki at ubbil yéene kaay professeur Amadou Gala Diop def ay constat yu yéeme te doy waar waxati ci li nga xamante ni moo di scandale Nestlé bi bu dee ca Europe laa bi nga xamante ni moom la ñuy jox xale yi du am suukar yëgle gi naan maan gaa daal jàpp nañ ni Nestlé bi nga xamante ni moom la ñuy jox xale yi laa wax ni mu war a demee demewu ni Abdou Mbow muy jàpp ni porte parole du gouvernement ngi leen ni nga xamante noonu la war a waxee waxe ma ngay naan dama koy rig ci am nag delloo ko aw kii may leen ma ma wax kon nag li ma xam nag mu Abdoul Mbaw ngay yëkkati ay kàddu naan yéen lan mooy seen problème nag respect moom lu am solo la di ay kàddu porte parole gouvernement ngi nag la mu fësal xamle ko mooy bu fekkante ni sax daa am ñenn ñoo xamante ni jéem na ñoo caax caaxee wala ñu jéem a xajamal ndax ku dee xam na ni ca député ya ca assemblée ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñoo fa ëpp yëglekaay gi naan ma sare ne lu ni mel nag du tax benn yoon ñoom ñi saax saaxee ka xaaj xaajee ka def leen neex mbaa nuy jéem a kontar gouvernement ngile bu naree am ñu dal seen kaw ñoom opposition bi majorité ca fa nga xamante ni moo di ca assemblée du tax lu leen neex def de lu jéemee bloqué mbaa ñu jéem a tànte lenn loo xamante ni rek xajamal nguur ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye gi bu nu wattuwul ñu dissoudre nag assemblée bi jaxasewaat carte gi démarre élection Abdou Mbaw yëkkati ay kàddu laa la wax ne da koy riig ci aw place am de daan ni seen député bennoo laa wax ñu wax gouvernement gi laa wax ci jëmi boppam mu respecté li nga xamante mooy le principe de séparation des ku ci nekk ci ñun laa wax occupé xamante ne ay ministre yu Macky Sall la ñu woon bëgg a siège ca fa nga xamante ni di ca assemblée nationale duñu ci wax jub jubeel géeg jubbanti gi nga xamante moom la Bassirou Diomaye Diakhar Faye woote tir bi di yëgle kaay dinaan maan na nag ñaari mafia yoo xamante ni laa la wax mi ngi ci digg bi di xool ak saytu ma nu muy demee muy li jëm ci wàllum matt mi ci àll ne du ci dellu gunaaw muy fexe wàññi li nga xamante moo di dund gi yëglekaay gi ne képp koo xamante ne da ngaa nekkoon ci ay diil tegal ci suuf te xam ne Basiru ne du xut ci loolu moom day ne ay solution lay wut ngir Sénégalais yi seen dundu ñoŋ keneen ko jóg ni nan wax ci leneen kooku Aminata Touré lay wuyoo ginnaaw weddi gi nga xamante ne moom la weddi ba mu set ñi nga xamante ne ñoo koy wax yenn wax naan man Aminata Touré ne waaye yéen bu leen fàtte nag benn yoon scandale mille milliards yi nga xamante ne moo amoon ci réew askanu sunu gaal xaalisub Covid ba moom ne du ñu ko fàtte benn yoon de moom mu ci namañ ak a wax ak a ñi nga xamante ne ñoom ñooy digga Macky Sall ku ci mel ni Mansour Faye yëgle kaay gi naan maan Aminata Touré ne mille milliards yi bu nu ko bàyyi mu sedd nan ndox jëm ci lijjanti nu mu leere ci réew mi mille daal du caaxaan ah jommi naa xaalisu Covid bi nga xamante laa wax Sénégalais yee ko dajaleel seen bopp laa wax xalifa généraux yi jàpp ci ku ne joxe la nga am ñu dajalaat ba mat lu ni mel mu demee nii doy na waar ay accord tegu na ci table ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Gàmbi rawatina Adama Barrow may njiit gi cey Basiiru moom ci jëmi boppam laa wax ginnaaw waa Mauritanie ci jëmi boppam waxtaan nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Gàmbi moom Basiiru Jomaay Jaxaar Fay yëglekaay bi di critique naa ma ñaareel ba ci jëmi boppam laa wax yóbbu nañ ko ca palais bu ndaw ba madame Jomaay 2 dem na ca au petit muy mel ni kon palais bu mag ba benn jabara fa war a ne déggal loolu hôpital principal bi nga deen duñ wax gi fi nekkoon yëglekaay gi mu dem fay ndax ci jamono yi covid 19 gi ñàkk nañ lu yéenekaay naan lu ma la mën a xamal daal ngir xeex dundu gu seer gi ci réew mi askanu sunu la fas yéene recevoir waa secteur privé Walfadjri quotidien fi woon PM muy wax ci dundu réew mi askanu sunu gaal te naan waa nga denn sax duñu dem ba jaay li nga xamante moo di avion présidentiel gi lée yi ni taxaw ni nañ leen gestu lu ëpp 300 taxaw di laaj seen àq seen yelleef réew mi askanu sunu gaal nanu ko wax yéenekaay gi naan man Serigne Babacar Sy ci xol yi ziar général ba ca Tivaouane seere na ko mbooloo mu fatt taret laa wax bàyyi fasantikoo ci gox yi fasantikoo ci réew mi askanu sunu gaal ak bitim réew ëbbil yéene kaay bi teew ci ziar bi yëgle gi naan man Bassirou Diomaye Diakhar mi ñoom ñëpp séq jàmm tax fu mu jebal aw délégation sa ziar ba mbokk xarit yeeg di waa Real ñoom gi naan man maa nga ci wéq jiital ga Real ci jëmi boppam woneeti na boppam jiitooti na ubbil yéene kaay bi Barça kay mi ngoog rek antenne ko dijee yëgle kaay naan man bul dem taxawal waxal ci li xew ci réew mi askanu sunu ko def de doon moytu aw trois roues du xam ngeen ko moom la doon moytu laa la wax ba ni ngal ngal ngal ngal bipp ci suuf fanweeri nit daal ca blessé am ci juróom-ñaar yoo xamante ne fi mu toll nii tembe ñi ngi ci guddi gu bët setagul blessure yu metti la nu fa jëlee metti na te doy waar de siy bu baax rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Dambel jaageen jëf kon nag jërë a nekk ci biir réew mbaa bitim di leen wax ni doole jot ndox la waaye ñun suñu doole yéen ñi ñuy teewlu la kon nag fu ngeen mën a nekk ni ñu teewlu rek ñu ngi leen di béggee waaw naan leen café gi nan simbulee xoog café gi ñun ñëpp rek képp ko war a naan ci café gi na ci naan waaw ma daal leen di jaajëfal bu baax a baax xibaar yaa ngi noonu mbokk yi ngeen dégg li gën a fës muy euh, ziar général bi nga xamante ne moo am ca Tiwaawoon mboole seen askan wi euh, lu bari ci ñoom daal di faa teew foo sànni mbatt mu tàkk mbooloo mu fatt tërëj macha allah euh, teew fa lii wane nekk Serigne Babacar si ci xool yi Serigne Babacar Sy ci xel yi Serigne Babacar Sy la ñu bëgg gone yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jeunesse bi ak mag ñi pour rek daal nañ koy fësal daal di koy firndeel euh, taalibe yi daal dem nañu wuy ji euh, li nga xamante ni moo di ziar général bi mbooloo moo xamante ni daanaka mësta teew ci ab ziar la ñu ne mekku ca fa nga xamante ni moo di ca woon euh, Tiwaawan Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes yëkkati nay kàddu nag waxtaan ak askan bi waxtaan ak jeunesse bi rawatina célibataire yi nag ngir rek ñu euh, fonk xëy mi di liggéey nag saa su nekk rek euh, ngir mën a wat wattandu li nga xamante ne moo di yenn ñaawteef yi nga xamante ne ñu ngi koy sooke nee nag ku ci amul liggéey ci ñoom nag la nga xamante ne mooy sa gàllaaj mooy deel woor ngir rek nga moytu di sooke yenn ñaawteef yi nga xamante ne rek mooy am wax na ci wàllum chômage mi taxawaalu gi seetlu gi mu seetlu ni sëy yu baree bare bari ñu ngi leen di fas waaye dañuy fecceekuwaat euh, ci diir bu gàtt boo xamante ni moom la ñuy def ñi at ñi ay weer ñu euh, sëy yi daal di fecceeku euh, lu ni mel wax na ci tem mbokk yi kon li mooy li nga xamante ni mooy li indi rek ci xibaar yi ginnaaw ja bi dañuy wax ci leneen lu ñeel tukkib nemmeeku bi nga xamante ni suñu njiit gu yees gi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal na ko ca fa nga xamante ni moo di ca Banjul maanaam ca Gambie ginnaaw fa nga xamante ni moo di ca Mauritanie dem na ca Gambie ngir rek gën a rataxal diggante Sénégal ak Gambie Adama Barrow ak ñaam mu fa fekk tertu bu am solo lees ko tertu mu nekk loo xamante ni rek euh, ñëpp ñu ngi ci bàyyi aw xel mbokk itam benn accident bu doy waar boo xamante ni rek moo daal di am ci aw watax goo xamante ni nag wataw njaga njaay la daal di daanu daanu boo xamante ni rek fanweeri nit daan nañ cee blessé juróom-ñaar am ay blessures doy waar ñuy rek ñu gën a moytu ndax kat moom ci jëm boppam aw borom ñetti ruu la doon moy moytu tricycle la doon moytu ba lu ni mel daal di am waa ji ca Linguère moom li mu def moo yéeme nag te doy waar jaax ñëpp ëlëm ñëpp nag la doon déglu aw sàmm la di déglu musique ba ba yàgg aw xaritam ni ko li ngay déglu neexut daal di critiquer musique ba sonore ba qualité wu musique ba mu daal di jël aw jaasim rek daal di dagg aw loxoom ni ko yee eh, maanu ci sama musique <laughs> mu nekk lu doy waar mbokk yi fii la ñuy yëkkatee jotaay bi di leen jox di daje ba suba salaam mbokk yi leen fàttee si benn yoon ci li nga xamante ni moom moom moo di Kafik ah, Fall Damel gi waaw waaw waaw waaw waaw ah, waaye Modou Yade woo na ma ni ma café laa bëgg damay simb leexu maa ngi koy nuyu bu baax baax di bëgg képp koo xamante ne yaa ngi nuy teewlu ñàcca ah, fool foofee di reefaan yëpp maa ngi leen di jaajëfal di leen kontaane di kontaan Baye Modou Yade itam mu Thiénaba moom itam maa ngi koy bu baax a baax di ko jox wàcc waayam di kontaan si ñëpp ñu ñuy di ñu teewlu seen mbokk seen xarit Fall Damel ay ca café ko diggee maa ne képp ko commentaire rek ma tudd saw tur kon nag que ma daal di dem ca commentaire xool ñëpp ñi nga xamante ni dañoo daal di euh, def li nga xamante ni moo di commentaire ma tudd seen ay tur jaajëfal leen bu baax a baax kontaane leen itam ndax doole jën ndox la waaye ñun nag doole yéen yi ñuy kon nag saa su nekk rek euh, faw euh, ñu di leen bëggee ak di leen jaajëfal rek di leen kontaane itam ndax kat ah waaw waaw ku lay safoo da koy safoo nag ma ne ko ku la safoo nga safoo ko nag ah lu ci waay man ah réewum askanu sunu gaal nag foofu la toll nag ma ne ko réewum askanu sunu gaal foofu la tool nag tool na ci képp ku la bëgg nga bëgg ko ku la ñàkk bëgg nga nga nga nga teg ko ci suuf waaw. ah waaw acca nan dem nan dem nan dem nan dem ma nuyu bu baax a baax képp ku nuy teelu moo du Yade wax naa ko léegi ah, merci beaucoup kontaan naa ci yow déggante nañ macha allah Abdou Diop maa ngi koy bëggee bu baax a baax Mor Seck di ko bëggee bu baax a baax euh, di bëggee euh, bu baax a baax du Ndiaye borom Maroc def ma si yow sama waay nga Binte Sarr maa ngi lay nuyu bu baax a baax di bëggee Oumar Diallo di bëggee Michel Tine bëggee bëggee bëggee bëggee tamit bu baax di bëggee di bëggee ba faaw ki nga xamante ne moo di sama xarit waaw Serigne Abdou Salam Sarr sama nit la maa ngi koy nuyu bu baax a baax maître Kiyaate ca Gosaas maa ngi koy bëggee di ko kontaanee euh, kontaan képp ku ni bàyyi di bëggee Issa di bëggee Mamadou Lamine Ndiaye sama xarit la Poulo maa ngi koy bëggee di bëggee Kéba Dia bëggee bu baax a baax Ndumbe Tine di nuyu bu baax a baax El Hadj Sakho di bëggee euh, Mamadou euh, Sow euh, Diaw moom sama xarit la maa ngi koy bëggee bu baax a baax kenn la ci man kéemaan rek waaw waaw waaw Fall Euh, waaw ca kanam rek la ma wax demal ca kanam waaw waaw Cheikh Wade maa ngi koy nii bu baax a baax Saliou Sylla maa ngi koy biggee Dame Kunta di biggee am ñi ngi sama xarit la bu baax moom sama nit la ma ma biggee gi sama xarit la sama mbokkum taalibi la ndeysaan ku baax Maodo kan maa ngi lay nii bu baax a baax Sam sekk di la biggee di biggee Babacar Khoule di biggee bu baax a baax Oumar faal di biggee item Maodo Maodo Maodo laay bii maa ngi biggee Xaasim ca pirum ndëri di ko xeleel ci café gi ni ko xaas naanal nee na nag man Fall laay naan xaas kon du tee nga ko naanal waa BJR waa les leaders sama gars yi ñoom Ahmed fay ah Matar Mbaye ah, ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Liis ah ah déet sama waa ji Mamour fay maa ngi koy nii bu baax a baax di bëgg bu baax a baax a baax a baax itam ah, Papa Thion Faye ñoom amari ñoom Wade ñëpp rek euh, ah sama sama sama célibataire yi ci sunu biir ñoom El Hadji Kanak ñoom japonais gars yëpp bëgg naa leen de waaw Baara Fall ñëpp rek bëgg naa leen ñëpp rek waaw li moo tax nag lim gi nag dama ko dul man nag ndax ku ne ku ne nga bëgg koo tudd ba ci ñu bees yi ba ci booy ku ne nga bëgg koo tudd ay tafa ajoon nag boo yooyu yëpp nga bëgg leen tudd day doy waar kon baal ma nuyu leen waa pirum ndër gi yëpp daal bëggee naa leen jox leen seen wàcc waaye di bëggee waa Gosaas itam di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci ñoom di bëggee waa Kaolack Ndangaan Sédhiou Matam ba ci Kicoor fu waaye nekk di ma teewlu rek ñu ngi lay jaajëfal di la kontaane di bëggee waa euh, euh, Kaolack wax naa ko léegi waaye waa Ndakaaru Ndiaye Jal Diop ni ni may bëggee nag loolu lu am solo la maa ngi jaajëfal ñëpp di jox ñëpp seen wàcc waaye mbokk yi kon ma jox leen dig dajale ah kon suba ak jàmm ah ah mooy daq de ay ca kon bu suba ak jàmm jërë ngeen jëf kontaane naa leen bu baax a baax a baax si mu leexu leen jaa ngeen jëf